nous avons un plan d'action à court terme 2020 là, 2035 parce que nous avons un projet projet yi nga xamné am ko mu gëna gatt logements Nous avons un amna partenaire yo xamné États-Unis bëgg nañ leen indi tamit smartphone téléphone d'ici 2019 en même temps am nañu machine à puce parce que xam nañ ne léegi lépp c'est électronique tey même puce bu ñuy utiliser ci téléphone yi mu jëm ci opérateur yi da ngay gis ne loolu bitim réew lañ koy jëlee ñu am projet boobu am ay partenaires yi nga xam nañ pour financer ko mais tamit pour won réellement lan mooy groupe prestige parce que jamono ji euh, groupe prestige peut-être site bi la ñëpp xam mooy prestige thies point com waaye am na yeneen yu làkk ci ginnaaw comme agence beeg yooyu noonu looloo tax ñu fas yéene indi yeneen yu bees ngir jaay Thiès réellement nag cees ku gis xam na cees enjeu la nag euh, enjeu bu gën a mag jamono ji euh, aéroport bi ñëw na moo ngi jas léegi lancé nañ pôle urbain de jam ñaajo dakar fees na kon feneen fu ñu jëm thiès la balaa boobu nag ñun doomu thiès yi ñoo war a taxaw liggéey xam réellement lan la ñu def pour suñu réew loolu moo tax suñu pdg am benn vision indi ay partenaires yi nga xam dina mën a tax ñu liggéey pour ñu développer suñu dëkk midi thiès Euh, peut si wàllu information bi moo leen wutaleeg ñeneen am na ñeneen ñu wax ne seen information dafa mel la dafa am suñu information pour Thiès yëpp la parce que ñun lu ñu tax a jóg mooy ku ci gën a ndaw ba ku ci gën a mag mu xam lan moo xew biir Thiès te euh, ku xam xam ne am na yu ñu innové nag dañuy def ay plateau léegi toog di waxtaan ak nit ñi ñu xamal leen lan mooy lan am ay émission yoo xam ne indi nañ ko ci wàllu site ñu koy def ci suñu site tamit loolu moo tax. lépp ñëpp cees foo munti bokk ak foo munti ne ak loo munti def précise cees yow yaa ko tax a jóg ndax information moom droit à l' information ak loo munti def war nga koo am te précise day dem jëli ko ñëw indi jox la ko. sama moom ñi nekk fële sa mënul euh, def internet mel na la yéen a ngi xalaat ubbi rajo. waaw am nañu rajo parce que groupe la comme ni ma ko waxee ñu ngi ci yoon bi pour tijji rajo daanaka lépp yemb na sax pour lépp mët euh, rajo bi dina ñëw ñu tijji rajo prestige da am na imprimerie prestige tamit am na yeneen projet. projet yu làkkatu comme au prestige tamit lépp prestige la quoi am na yeneen projet yoo xam ne lépp Thiès waa lañ ñëw ciy liggéey pour ñu mën a investir jox jën cees waa yi liggéey daanaka loolu moo tax a jóg groupe prestige.